sayidina mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahabatihi sawi ridwani wa tamkin wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida yassir lahum bihi alladi taassara fa kullu ma yassartahu tayassara rabbi yassir wala tuassir wa yaa muyassir alxasir wa aatini xasanatan fi dunya wa fi gadin wa yassiran li saaya mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoor yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi Cheikh Mahamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko te wéral ko ba naal yi nga xam ne yéene na ko yépp mu ànd ko ak taalibe yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi yépp naka noonu itam noo ngi nuyu bu baax di ziyaara jàmbaar ji nga xam ne liggéeyam bu rëy moo waral jataay yi am di dajee xam-xam di Cheikh Mahamadul Amin Cissé ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko ba moom tam naal yi mu naal yëpp mu def ci lu kawe njortam naka noonu dañuy nuyoo sëñ ma di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci barab bi di sàkku xam-xam bu ko defee kon ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ak mboolem ñi nga xam ne ñooy dégg suñu kàddu niñ ko baaxoo ànd rek ci waxtu wi bu jotee ñu tànn kenn ci boroom xam-xam yi te lu ci baree bari ñuy ñoo xam ne daara ji moo leen produire ñu fas yéene ànd ak ñun ci waxtaan woo xam ne dañ ciy fàttalante waaye tamit jubluwaay bi di dundal weeru koor kem ni nga xamee ne noonu lañ ko baaxoo ci dëkk bi ci jumaa yu baree bari ak ci jàkka yu bari bu ko defee tey nag ñu fas yéene ànd ak koo xam ne kenn la ci ñi nga xam ne ci barab bi lañ jaar sàkkoo fi xam-xam ba suñ boroom dogal seen alliwa yaatu lool bañ mën a toog fii tey di def waxtaan waaye balañ koo jox kàddu gi rek ñu daal di koy xamle ndax bu ñu xamee kii wax mooy kan dana tax ñu gën a mën a am cawarte ci déglu ko bu baax a baax ki ñu defal waxtaan wi tey moom la ñuy wax sëriñ Ibrahima Tunkara bokk ci ñi nga xam ne dañoo cosaanoo Saalum ci dëkk bu ñuy wax Touba Saalum Seex Ibrahima moomu nag foofu yi mu feeñee jamono fala dale jàngam tàmbulee ci école arabe yi franco arabe yi bam fa jàngee ab diir jóge fa ñëw Touba ci daara yi sëriñ Isxaaqa Mbàkke nga xam ne moom mooy wasilaam foofu la ñëwee fi la jànge jàngee alxuraan ba yeggalee fi am njàngam foofa itam la dalee li nga xam ne moom mooy njàngum xam-xamam foofu la jànge lu baree bari bu dee ci fiq ba mu fay jóge fa la jàngee ba toll ci siraaju saalik bu dee ci luxa bi itam jàng na ko ba maqaamatul xariiri ginnaaw bi nag la fi door a ñëw fii nga xam ne moom mooy bu buqaatul mubaarak bii nga xam ne mooy daara Cheikh Mahamadul Amin Cissé daal di fii ñëw ngir continuer njàngum xam-xamam bi mu ñëwee itam lu baree bari ci naxwu fii la ko jànge ba ci alfiyatu nu malik bu dee ci wàllu uh, luga itam fi la jàngee shuhara u man mii di wax ak yéen jamono biñ koy jàng ñoo ko doon ànd ak sëñ mbay male naka noonu itam fi la jàngee xalil téere yu baree bari ci majalis daal mën nañu daal njàngum majaalisam ginnaaw daaree sëñ Isaaxa moom fii la ko jeexale ba ginnaaw bi yàlla dogalee mu jóge fi nag ci la dem daaree sëñ Isaaxa moomu nga xam ne wasilaam la nekkoon fa yoroon majalis ba ab diir boo xam ne moo fa doon jàngale xam-xam suba ak ngoon ba ginnaaw bi itam yàlla dogal xelam nekk ci mu dugg ci njàngum académie te mooy njàngu mu yees mi njàngum école ci la demee fële ca mahadul xadim bi nekk daarul xuduus te sëñ Mourtada Touré nekk mu diir ba foofu la jàngee ba am baccalauréat bi mu amee baccalauréat yi itam taxut mu gàttan lu ca loola waaye mu toppatoo ay kayitam def déposement ba yàlla dogal ñu orienté ko fii ci mu jamma Cheikh Ahmadul Khadim mu jamma Cheikh Ahmadul Khadim boobu nag euh, ba mu fay nekk da ko boole woon ak nekk daaru tanzil bi nga xam ne jëwriñ ja mooy maam Baara Mbàkke xidmatul xadim moom itam foofu yoroon majalis ba tàggat fa ay xale yu bari ba yàlla dogal nag mu concentré wu ci njàngum mu jàmmaa bi fii ci université Chambatul Xadim di spécialisé wu itam ci li ñu tuddee dirasa islamiya étude islamique moom la nekk nii di def yàlla dogal itam ci pëstéefam ci pas-pasam moom mi mooy ki nga xam ne moo jiite maanaam étudiants yi nga xam ne ñoo fa nekk yëpp moom Cheikh Ibrahima mi laj na saqaafiya bi nga xam ne moo fa nekk nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu bind wala mu jëm ci wàllu ab jàngalekat bu ñu war a toppatoo wala université bi étudiants yi buñ soxee buñ soxlaawee waxtaan commission bi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo waxtaankat boobu xool ba dëppoo ci ban thème la war a waxtaan commission boobu Ibrahima mii mooy ki ko jiite man mii ca laa bokk waaye Ibrahima mii mooy ki nga xam ne moo jiite commission boobu loolu ko nekk liggéey boo xam ne liggéey la bu am am solo ma majalla boobu nga xam ne itam étudiants yi ñu ngi koy bind moom mii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo koy taxawee di ko di ko saytu waaye itam bokk ci ñi nga xam ne maanaam dañ cee participer maanaam bind ci naka noonu itam nag teewul def na déposement ngir mën a jàngale ci école yi état bi ba yàlla dogal waxtu wi ñuy wax ak yéen def na concours kerem bi te mooy concours boobu nga xam ne ci ngay jaar ngir mën a doon ab jàngalekat ci état bi jàngalekatu arab def na ko ba yàlla dogal mu validé ko ba fi mu toll nii ci formation yi nga xam ne danañ la tàggat waajal la ba nga doon ab jàngalekat boo xam ne di nga mën a jàngale ci formation yooyu la nekk di ko defee Jurbel boole kook nag waxtu wi muy am ngir mën a teew ci mu jammaa bi du tee day ñëw di wëyal am njàngam boo ko defee kon ngeen ñaanal ko bu baax suñ borom defal ko ci najaax ba ni mu ko bëggee yëpp mu am ko shaa'ir la waykat la boo xam ne ñi koy topp ci facebook beeg ci istat yi jamono bu nekk ci xew-xew yi nga xam ne moo xew dana bind ay maqaala di ko jàllee ci page facebookam di ci wax xalaatam comme ni nga xamee ne noonu ngeen ko xamee waaye tamit léeg-léeg mu jaarale ko ci ay way léeg mu def way yoo xam ne da koy def ci tasawuf wala mu def ko ci fiq wala mu def ko ci geneen fànn wala mu def ko sax mu nekk way yoo xam ne dafay nekk way yoo xam ne day orienté wala muy joxe xalaatam ci xew-xew mën a doon kon yaakaar naa ne loolu buñ ci jàppee rek dana doy sëkk ñu xam ne kii ñu jox waxtaan wi kat maanaam nit la koo xam ne mën na koo taxawe lool liñ mi war a waxtaanal nag mooy ilmul kalaam ilmul kalaam ak maraaxil yi nga xam ne ci la jaar ba maanaam yegg fii mu yegg si tey ba am évolution bi nga xam ne am na ko tey loolu nag yaakaar naa ne buñ ko joxee koo xam ne ci islaam islaamiya la nekk day mel ni kon rek mooy nga jox mason bi ne ko tabaxal ma ndax ku wax diraasa islamiya xam ne loolu bokk na ci ay matière am muy ilmul kalaam xam naa ne bu ñu duggee ci biir waxtaan wi rek bu ci àndeek ñun danañ xam xam-xam boobu lan mooy njariñam ak naka la sosoo ak itam yoon yi nga xam ne ci la jaar ba xam-xam boobu ak gi fii mu agsi tey ndax bu ñu waxee fii ci réew mi xam nañ ne bu dee ci wàllu pas-pas al aqidatul ashariya moom la ñuy dund te ku wax abul xasan al ashari da nga wax ilmul kalaam ndax bokk na ci ñi nga xam ne ñooy maanaam ñi nga xam ne dañ cee suy boo bu ama am solo indi ci seeni xalaat waaye tamit orientation yi nga xam ne am nañ ko ci ba ci gént gim géntoon gis yonent bi ba ci ni mu jaaree ba taxawal ma masahab bii nii xam ngeen ne loolu lépp dafa lëkkaloo ak li nga xam ne moom mooy ilmul kalaam moo tax nag ñu bëgg si Ibrahima tey mu ñëw daal ñuy defal waxtaan woo xam ne day jëm ci ilmul kalaam naka la sosoo ak bi mu sosoo ci yan yoon la jaar ba yegg si mu yegg si kon Ibrahima ñoo ngi lay ñaanal suñ boroom dëgëral la ba ni nga ko bëgg a joxe yëpp nga def ci lu kawe njot aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala alihi wa sahbihi wa asna xadimihi wa ummatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatan min lisaani yafqahu xawli wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arshida mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye di ñaanal Cheikh Mouhamadinil taxa mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ bi tey sunu boroom guddal aw fanam yokk ak wéram te bu ko kàttan akuk man te bàyyee ko ak sagoom bam mu yeggali mboolee mi naalam ak bëgg-bëgg yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal sëriñ bi waaye di ko ñaanalit sunu sëriñ muy sëriñ siise mi nga xam ne mën nañoo wax ne lu bëree bari ci ñun moo ko def ci ñun lu bëree bari ci sunu njàngit sunu borom dogal na mu bokk ci nit ñi nga xam ne suyee nañ ci rol bu am solo nga xam ne it mooy kilifa bërëb bii ti ñu tey ñu nekk te ay at ci ginnaaw ñu nekkoon fi doon sukk fii ni ndongo yépp daan jël darsu ci kanamam moom it ñu ngi koy ñaanal sunu borom guddal aw fanam lool weral ay cëram mit ba naal yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal lislaam ngir jëmi yàlla rek tax nga xam ne laaju ci payoor laaju ci dara waaye da ko def rek te yàlla tax di tàggat doomi jullit ñi ci di leen yar di leen jàngal alquranul karim di leen xamal seen diine loolu ñu ngi ko ci ñaanal sunu borom yéene jëm ci am mu kàttanal ko ba man koo matal guddal aw fanam lool waaye di ko ñaanal it képp koo xam ne mos ngaa jaar ci bërëb bi ak ñi nga xam ne ñoo ngi fi tey di jàng ñi ñuy suñuy mbokk mbokk goo xam ne mën nañoo wax ne ci mbokk yi gën ca la bokk muy bokk nañ sëriñ bokk nañ bërëb biñ doon jànge bokk même daara ji loolu nag eh, day mbokk goo xam ne dara mënu koo wecc moo tax ñoom ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax sunu boroom taxawu leen sàmm leen aar leen ba bépp araf woo xam ne ne mos nañ koo jàngi fii sunu boroom barkeel ko waaye du nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk ci biir te ñu ci bëree bëree bëri di sunuy kilifa ñu ci bëri jàngal nañ ñu ndax ku xam daara sëñ Siise xam ne maanaam yàgg naa bari ay kàng xam ne ñaareel moom bu la joxee darsu ba noppi faaw dangay dem ci ñi nga xam ne xañ na ñoo la sut aliwa ñu lay toppaatal kon bari na ci ñoo xam ne fii yàgg naa leen di sonal <laughs> yàgg naa leen di sonal lool sax waaye loolu lépp tey gis nañ coono boobu ñu daan toggoo ngir ñun njëriñ lim def ci ñun kon ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu ak itim di leen safoo saa su nekk di sant it sëriñ Baawkar Sàmb ci ibite go nga xam ne def na ko ngir dugg ci waxtaan wi kenn ni mu ko waxee rek muy xam-xam bi nga xam ne moom lañ bëgg a xamle tey mooy lan muy ilmul kalaam mooy ban xam-xam ak ban wàccuwaay la am ci lislaam ak it yan étape ci la jaar muy maraaxil yi mu jaar minal al wilaada ila al xabu wa min al xabu tatawur muy maraaxil yi nga xam ne ci la jaar fan la juddoo ak évaluation yi ci am ba ni muy yéggee ci marxalatu nudju mooy marxala bi nga xamee ne ci la mat complété doon xam-xam boo xam ne ilman mustaqillan bi zaatihi la ndax xam-xam yépp benn bu ci ne am na histoire mën nañ koo delloo ci taarix ne dat sàngam ci la sosu waaye boroom xam-xam sàngamit moo ko sos mooy ki ko njëkk a wax loolu nag yaakaar naa ci xam-xam yépp la am léegi nag ilmul kalaam bi ñuy waxtaanee di waxtaanee ak sosoom waxtaan wi dañ ko fas yéene teg ci ay point point bu njëkk bi dinañ xamle lan mooy ilmul kalaam bu ñu ko waxee mooy lan loolu mooy point bu njëkk bi ñaareel biit dinañ xamle ay turam ndax léeg-léeg nga gis xam-xam boo xam ne maanaam day ami tur te yaakaar naa bu ñu demee ci biir dina leer ndax ñu bëree bëri buñ ne ilmul kalaam xañ na jëmmi baat boobu yees na ci seeni nopp waaye jëmmi xam-xam bi yeesul ci ñoom ndax bokk na ci xam-xam yi ñuy njëkk a jàng fii même kii doorata a tàmbali tasaw du si sax moom lay njëkk a tàmbalee kon loolu du xam-xam bu yees waaye xañ na tur yu bari yi ak tur wii ñu wax tey moo yees ci seeni nopp loolu it dinañ ci taxaw leeral moom tur yi nga xam ne boroom xam-xam yi ñu ngi ko koy faral di wooye muy xam-xam boobu di ilmul kalaam waaye dinañ leeral it ay mabaaxisam ndax xam bu nekk maanaam buñ ne lii mooy xam-xam sàngam faaw danañ wax ne moom ci lan lay wax xam-xam bi ci lan lay wax ak lan moo ko tax a jóg ndax xam-xam dafa yaatu lenn lu nekk ak la ko tax a jóg waaye moom ilmul kalaam dinañ leeral lan mooy mawduu bi nga xam ne moom lay traité mooy lan moo ko tax a jug buñ ci jógee it dinañ wax njëriñam ndax xam-xam bu ne yaakaar naa ngir nga xam ngir nga mën koo fonk jox ko ak xam da xam dayo bi mu am ak wàccuwaay bi mu am ci lislaam kon it dinañ leeral Eh, lan mooy njëriñu ilmul kalaam ak wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci lislaam buñ ca jógee dinañ leeral maanaam méthode bi nga xam ne moom lay faral di traité ay baxsoom maanaam recherche yi muy def ak mawduaat yi muy yi muy yi muy jàngat ci yan méthode la koy jaar ndax léeg-léeg xam-xam mën nañoo bokk ay ahdaaf maanaam mën nañoo bokk ay jubluwaay ne ñoom fee mooy seen jubluwaay waaye yoon yi yiñ koy jaaree wuutee te loolu buñ ci duggee dina leer ne moom am na yeneen xam-xam yoo xam ne xañ na am na lu ñu bokk ci wàllu hadaf waaye nag méthode bi ñuy jaar dañ ko wuutee buñ ci jógee dinañ leeral kañ la sosu ak maraxil yi mu jaar ba yegg si fii tey bu ko defee it dinañu leeral maanaam intixaadaat mooy critique yi nga xam ne dal na ci kawam te jóge ci ñenn ci waroom xam-xam yi ak maanaam ruddoot yi nga xam ne am na ci ci ñi nga xam ne ñoo koy défendre loolu lépp bu ñu ko temps bi mayee incha allahu taala dinañ ci jéem a maanaam euh, soobu kon ñu tàmbalee ci point bu njëkk bi muy taarif lan mooy ilmul kalaam ilmul kalaam bu ñu ko waxee ñi ciy namm ilmu tawhid mooy ilmu tawhid wala ñu ne ilmu usuli diin wala ñu ne ilmu fiqh al akbar wala ñu ne ilmu iman wala ilmu asma wa sifaat yii yëpp ci ay turam la am na sax ñu ne ba tey ilmu usuli sunna bokk na ci ay turam moom ilmul kalaam bokk ci xam-xam bi gën a fés ci xam-xamu lislaam yi ndax moom li muy gëstu mooy pas-pas pas-pasu jàmm bi ak nan la koy mën a saxalee ba mu wér ak nan la koy mën a défendre man koo porteese ci ay adilla ay argument yoo xam ne maanaam da koy teg ci xel ngir mën koo dëgëralee argument yi nga xam ne moom lañ tuxal jëlee ci alquran ak sunna euh, ci loolu am na ay taarifaat yu bëree bëri yoo xam ne ulamaul kalaam yi wax nañ ko waaye du ñàkk ne dinañ jaar ci yenn yi rek ndax jaar ci yépp moom yaakaar na waxtu yi duñu ko may bu ñu koy taarifal moom ilmul kalaam dañuy wax ne huwa ilmu iqaamati al adilla ala sixati al xaqaid nga xam ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy saxal walla ci ngay mën a jaar ba mën a saxal mën a am ay firnde yu wóor ci sa wérug pas-pas sa wérug pas-pas muy sa wàllu tawhid yan firnde nga koy mën a dëgëralee firnde yoo xam ne nag danga koy jaare ci sam xel mu dëppook li alquran ak sunna wax ba tey buñ jëlee beneen taarif it moom daf ne ilmul kalaam ilmun yuqtadaru bihi ala isbaati alxaqaaid addiiniya muktasabatan min adillatiha alyaqiniya wal adilla alyaqiniya hiya alquran wa sunna alsaxiha waaye li iqaamati alxujaji walbarahin alxaqliya wa naqliya wa raddi shubuhaati an alislaam mooy ilmul kalaam mooy xam-xam bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku ngir mën a wéral mën a saxal pas-pasi diine yi waaye pas-pas yi nga xam ne nag ñu ngi ko jukkee ci maanaam adila yi nga xam ne adila yaqiniya la te buñ ne adila yaqiniya mooy benn muy lu alquran wax wala muy lu sunna su wér soo xam ne ñëpp dëppoo nañ ne lu wér la moo ko moo ko saxal loolu nag dañu koy def jaare ko ci indi ay lay ak i firnde yoo xam ne dañu koy teg cim xel waaye dëppale ko li nusoos yi wax ngir mën a wéral sunu pas-pas waaye mën a raddiit bépp subahaat boo xam ne noon yi ñu ngi koy def ci lislaam boo demee ci adudu diini al iji ci téeréem boobu di al mawaqif moom daf ne ilmul kalaam ilmun yuqtadaru maahu ala isbaati al haqaid ad diiniya bi iraadi al xujaji wa dafi subah wal muraadu bil haqaid maa yuqsadu bihi nafsul ictiqaadi duuna al amali wa bi diin almansuba ila diini muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ilmul kalaam mooy xam-xam bi nga xam ne maanaam ci la ñuy jaar ngir saxal pas-pasu diine yi jaare ko ci ay lay yoo xam ne dañ ciy mën a sukkandiku ngir fekk lënt yi nga xam ne noon yi ñu ngi ko bëgg indi ci lislaam moom nag pas-pas rek lay tereete waaye jëf bokku ca waaye bu fekkee ne dañoo sukkandiku ci taarifam bii moom adu di diini al iji kon dañuy wax ne li ko tax a jug mooy maanaam défendre diine ji muy diine yonent bi ndax boo gisee daf ne maanaam almuraadu bi diin mooy ad diiniya almansuba ila nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fii buñ ci sukkandikoo dañuy gis ne mboolem firax yi nga xam ne ñoo ngi ci biir diine ji te doon ay kuréel yoo xam ne dëgg la ay ulamaul kalaam lañ waaye ñu wuutee ay gis-gis lañ ñooñ ñëpp dañ leen di considéré ñu bokk ci biir maanaam ilmul kalaam bi nga xam ne muxtabar la maanaam dimna ulumil islamiya kon moom buñ sukkandikoo ci taarifam day mel ni ilmul kalaam li ko tax a jóg mooy tontu yahuud yi ak nasraan yi yi nga xam ne bokkuñ diine lëntal yi nga xam ne naroon nañ ko indi ci sunu diine ci wàllu pas-pas maanaam ngir ñu man koo radd kon day mel ni taarifam bi am la waaye boo demee ci muqaddima bu ibnu xaldun moom da ko taxsisal da ko taxsisal ni mu ko taarifalee dafa xam le ne ilmul kalaam kat maanaam mooy xam-xam bi nga xam ne ci lañuy ñuy mën a jaar ngir mën a saxal maanaam pas-pas bi wér maanaam mën a saxal pas-pas bi wér waaye mën a tontu it ñi nga xam ne ñooñ bidaa lañ ak ñi nga xam ne dëgg la ñoo ngi tuddoo lislaam waaye seenu pas-pas dafa jeng kon gis ne moom taarifam moo gën a gàtt taarifu adadu diine al iji bee ñu waxoon ci ginnaaw ndax moom daf ne ilmul kalaam huwa ilmun yatadammanu alxijaaj an alxaqaaidi al imaaniya bil adillati al aqliya wa raddi al mubtadia al muncarifina fi al ictiqadat an mazahibi salaf wa ahli sunna wa sirru hasihi alxaqaid al imaniya huwa tawhid moom nee na ilmul kalaam mooy xam-xam bi nga xam ne moo làmboo lay yi ñi may mën a layelee sunu pas-pasu ngëm jaaree ko ci ay firnde yoo xam ne danañu ko mën a teg ci sunum xel waaye it boole ci di tontuwaale ñi nga xam ne ahlu bidaa lañ te doon ñoo xam ne seenu pas-pas dafa jeng wuute na ak pas-pasu ahlu sunna jamaa te nee na mbootum xam-xam bii nii mooy at tawxiid te moom waxam ji nii moo dëppoog li imaamul Xazaali wax ci almunqizu min addalaal bi muy taarifal ilmul kalaam ba tey boo demee ci saadu diin at taftazaani moom daf ne alkalaamu huwa al ilmu bil aqaaidi diiniya anil adillati al yii yëpp ay taarif la yoo xam ne boo seetantelee ba ci biir daanaka seenu wuutee mën naa bañ a sore noonu waaye am na sarta ngir ilmul kalaam mën na doon ilmul kalaam ñu ne lii kat ilmul kalaam la faaw am na ñaari sarta yoo xam ne daje daje sarta bu njëkk ba an yabda a xaqidatuhu min kitaabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mooy balaa ñoo reconnaître ne mazhab kalaami bii muxtabar la dimna ulumil islaamiya mooy ne moom masabam boobu ci ilmul kalaam da koy teg ci pas-pas yi nga xam ne dañu koy tibbee ci alquran ak sunna loolu benn sarta ci ñaareel bi mooy an yakuna hadaful baahis wal gaaya min dirasatihi huwa difaau an haza al iman bil aql ay laa budda lahu min an yuakkida sharia bil aql ñaareel bi mooy moom mi nga xam ne mooy def gëstu walla mooy yittewoo ilmul kalaam jubluwaayam lii la war a doon mooy maanaam na mën a na mën a sukkandiku ci xam-xam bi ba am capacité yi mën a défendre sariatul islam ji mën a défendre diine ci am xelam euh, bu ñu sukkandikoo ci ñaareelu sarta bii nii kon day mel ni day dëppoog ni ko maanaam euh, ibnu xaldoon taarifalee ci muxaddimaam mook imaamul xazali ci almunqiz min ad dalal mooy ne bokk na ci sart bi tax ñu mën a ixtibaar ilmul kalaam muy ilmul kalaam wala ñu mën koo ixtibaar ka ilmin min al ulumi al islaamiya mooy ñaareelu sart bii mooy ne kii koy gëstu jubluwaay ba da caa war a bokk maanaam mu mën a défendre pas-pas yi nga xam ne lislaam saxal na ko waaye fan la koy jaaree mooy ci xel nga xam ne kon moom liggéey liggéeyloo gi muy liggéeyloo xelam amu ca benn jubluwaay lu dul dëgëralee ko li alquran ak sunna wax loolu nag buñ ci taxawee bu buñ demee ba ci biir dinañ gis ne am na ci yenn kuréel yoo xam ne ñoom ñu ngi ci biir lislaam waaye dañoo dem ba xaabaabal ci xam-xam bi dem ba nga xam ne maanaam bu ak taarut amee ci diggante al aql wa la ñoom yor yurajjixuuna al aql ala la maanaam dañuy jël xel teg ko ci kaw maanaam an naql mooy saa boo xamee ne luy ñuru ak juyoo am na ci diggante nusoos yi ak seenum xel wala li seen xel mën a jàpp ñoom dañuy jàpp ne li seen xel mën a jàpp mooy li wér nga xam ne donte lii nas ñëw na ci alquran ak sunna waaye teewul ñoom seen xel la ñuy jiital te ku ne xam ne ne lii wuute na ak ni lislaam di doxee ndax sayyiduna abubakar dane woon diinuna mabniyun ala naql la ala munasabatil aql mooy sunu diine dañu ko tabax ci maanaam ak tuxal diw nee na jëlee ci diw diw moom jëlee ci diw ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu doon xel mu rafet rek mooy diine kon yaakaar naa bi mu tasee du tey kon nga xam ne ñaari sart yooyu bu amul rek maanaam mënuñu ko tuddee ilmul kalaam léegi nag buñ ñëwee ci tur yi mu am yaakaar naa wax nañ ci tur yu bari ci njëlbeen gi euh, am na ñu naan mooy almu tawhid te tur woowu yaakaar naa ñun moom lañ gën a miin ndax bu ñu delloo ci sëriñ bi sax ay mbindab yu bëree bari tur wow lay utilisé woo mooy xam-xamu tawhid wala ilmul xaqaid te moo ne bind na téere bu ama am solo boo xam ne muy mawaahibul quddus muñ ko bind ci ilmul kalaam téere boobu téere bu ko ëpp solo ci ilmul kalaam maanaam man naa wax ne néew na surtout muy nazm naa néew na néew na lool néew na lool nga gis ko léegi nag ñu bëree bari tey amaan na boo leen laajoon ndax sëñ bi bind na ci ilmul kalaam dañ naan la sax lan mooy xam-xam boobu walla ñu ne la déeret te moo ne sëñ bi bind na ci waaye xañ na tur wa mu jëfandikoo ci téere boobu moom la miinu loon mooy ilmul tawhid euh, am nañu ko woowee alfiqhu al akbar alfiqhu al akbar ndax euh, bu njëkk dañ daan xaaj feq ñaari xaaj jamonoy saaba bay sax amuloon ndax jamonoy saaba yi buñ ne alfeq rek mooy koo xam ne dafa dégg diine buñ ne dégg diine nag ci ñoom mooy mbooleem xam-xam yoo xam ne xam-xamu diine la rek moom da koy peeg moo xam bi aju ci wàllu tawhid muy wàllu pas walla bi aju ci wàllu ahkaam yi muy wàllu fiq ni ñuy jaamoo yàlla wala bi aju ci wàllu axlaaq wal aadaab muy xam-xamu tasawuf ñoom alfiqu fiqu rek lañ ko daan tuddee alfiqu fi diin lañ ko daan tuddee leneen bi ñu demee ba ci maanaam jamono yi ku demee ni Abu Hanifa ñoom ci lañ ko tàmbali di xaaj ñu naan alfiqul akbar wal fiqul asxar buñ ne fiqul akbar lañ cey namm mooy ilmul kalaam ndax mooy xam-xam bi nga xam ne moo war a jiitu ndax nit balaa nga ne koon balaa nga balaa nga ne kaan jullil wooral jaamul yàlla day fekk mu ne gëm naa yàlla tudd baatu seere yi kon bu amul pas-pas mënoo koo takkilif benn jëf joo xam ne da nga ko cay forcé wala yu demee noonu moo tax ñu tuddee ko alfequl akbar moo tax it maanaam ñu ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy bi gën a riis ndax dañ ne jëmmi xam-xam bu nekk maanaam la muy tere te mooy euh, wala dayoom mu ngi aju ci dayoob lan lay gëstu te buñ ne xam-xamu ilmul kalaam ci lan lay wax ñu ne ci wàllu pas-pas ñu ne pas-pas mooy lan ñu ne mooy nga gëm yàlla gëm malaayka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm bis bu mujj gëm dogal kem niñ ko jàngee ci maanaam xaaju tawxiid yi léegi xam-xam bi nga xam ne mooy jàngat nan lañ war a gëmee yàlla ak lu aju ci moom sunu boroom ay melokaanam ak i jëfam yaakaar naa xam-xam du ko ëpp solo ndax buñ ne dayoob xam-xam moo ngi toll ni ni dayoob la muy jàngale ñu ne almul kalaam lan lay jàngale ñu ne jëmmi sunu boroom te yaakaar naa dayoob sunu boroom moom amul lu ñu koy maanaam tollaleel léegi nag bu dee ci tur wi nga xam ne ñun bi ñu tàmbalee ba léegi moom la ñuy wax muy ilmul kalaam lan moo tax ñu tuddee ko ko boroom xam-xam yi am nañ ci ay wax am na ñu ne li tax ñu tuddee ko ko mooy maanaam dafa bokk ci masala yi nga xam ne moom da koy da koy traité moom ilmul kalaam ba ca gën a siw muy maanaam alkalaamul ilaahi masala yi nga xam ne da koy traité masala bi ci gën a siw muy alkalaamul ilaahi maanaam muy waxu sunu boroom ji tabaraka wa taala al muy alquran looloo tax ñu ne moom lañ tud ñu tuddee ko ilmul kalaam euh, bu ñu delloo ci histoire rek dañuy gis ne maanaam alkalaamul ilaahi jur na coow lu bëree bëree bari ci diggante boroom xam-xam yi ba boroom xam-xam yu bare bari am ci ay fitna ñu fitnaal leen ca am ci ñoo xam ne sax tëj nañ leen ci kaso ba ca lañu mujj wuy ji sunu borom tabaraka wa te loolu lépp li ko waraloon mooy benn masala mooy alil quraan maxluuq mooy alquraan ndax mbindéef la wala du mbindéef te loolu lépp moo ngi aju ci waxi sunu borom te mabhas bii nii ilmul kalaam moo koy traité looloo tax na comme que masala mi dafa doon masala mi gën a siiw ci ay masalaam ba borom xam-xam yu bëree bëree bari am ci ay nattu ñenn ñi ne looloo tax ñu tuddee ko ilmul kalaam am ñeneen ñu ne déedéet waaye li tax ñu tuddee ko ilmul kalaam mooy nit ki bu ko jàngee ba noppi yàlla da koy may qudra kalaam mooy day mën a wax lum indi lum wax da koy mën a argumenté day indi ay maanaam adilla yu wér ndax xam-xam la boo xam ne day màccil sam xel da koy tàggat ndax buñ lay jàngal pas-pas yi nga xam ne alquran saxal na ko ak yonent bi duñ yem ci na la masalan yàlla am na ne alquran a ko wax wala yàlla moo fi jiitu lépp ne alquran a ko wax wala yàlla du dee ne alquran a ko wax déedéet dañ fay teg aaya yi alquran yi ak hadis yi ñëw ak yow nag buñ ne la yàlla am na ñu mën la ko layalal ci sam xel xel mu sell rek nan lay nangoo yàlla bañ a am ndax nangam ak nangam ak nangam ak nangam ndax liñ ciy sóoraale mooy léeg-léeg mën ngaa génn daje koo xam ne. boo ne ko alquran moom sax du xam li alquran moom jadidul hahd la fil islaam amaan na suur boobu nga dajeek moom mooy première bis bi biñ bi mu njëkk a dégg turu lislaam léegi kooku boo ko boo ko bëgg a ngir mu gëm ne yàlla am na ba mën a dugg ci lislaam booy wax ak moom cim xel rek nga mën a jaar waaye mënoo faa nekk ne ko yàlla nee na wala yonent bi nee na bu boobaa kan mooy yàlla ak bi la lay laaj loola tax ñenn ñi ne looloo waral ñu tuddee ko ilmul kalaam am ñu ne déedéet dañ ko tuddee ilmul kalaam ndax lan ndax dafa am relation ak ilmul mantiq te al mantiq wal kalaam ku ne xam ne ne ay baat la yoo xam ne sorewuñu lool lool ci làkku arab bi te comme que moom ilmul kalaam maanaam ay mabaaxisam ak domaine yu bëree bari da ko koo daade ci ilmul mantiq relation boobu ñu am moo tax ñenn ci waram xam-xam yi ne looloo waral ñu tuddee ko ilmul kalaam am ñu ne li tuddee li tax ñu tuddee ko ilmul kalaam mooy alkalaam muqaabil al fi'l te comme que moom li muy jàngale lépp ci wax rek la la yem ñu ne mooy ilmul kalaam bu dee yay jàngale jëf nag mooy ay fiq ak yooyu ñu tuddee ko yeneen xam-xam am na ñoom maanaam gis-gis boobu lañ ci am léegi nag buñ ñëwee ci mawduaat yi nga xam ne moom lay traité moom ilmul kalaam maanaam lan mooy gëstoom lan lay jàngale boo ko jàngee ba noppi lan ngay xam loolu euh, dañuy delluwaat rek ci liñ waxoon sànq ne moom baxsoom li ci ëpp mu ngi ko aj ci jëmmi sunu borom tabaraka wa taalaat tabaraka wa taala mooy mu ngi ko aj ci jëmmi yàlla ndax buñ ne ngëm te ku ne xam ne ne diine lislaam gëm gi dañu ko xaaj ay pàcc am na li ñuy tuddee al ilahiyaat mooy yi nga xam ne jëmmi sunu boroom rek maanaam moom lañ ci moom lañ ciy jàngale ak al xaybiyaat am na it kazalika an nubuwaat wala asamiyaat yooyu yëpp am na ci te yooyu ci bëree bari dañ naan lislaam bu fekkoon ne dañ fee dindi gëm xaybu daanaka ngëm day jeex ci lislaam ndax yi ñuy gëm la ci bëree bëri maanaam mënaguñu koo gis mënaguñu koo làmb daj ko loolu tax moom xam-xam la boo xam ne maanaam bokk na ci li muy baxs mooy jëmmi sunu boroom tabaraka wa jëmmam ci jëmmi boppam ak ay meloom ak ay jëfam ak it yónni gi mu yónni yonent moom sunu boroom ak togg jëf gi mu togg jëf jaam ñi ak euh, payoor gi nga xam ne digg na ko ñi nangoo jëfee ay ndigalam ak mbugal mi nga xam ne tëkkoo na ko ñi nga xam ne ñoo ngi juyoo ak moom moo tax boo demee ci almawaqif adadu diini al iji bi muy leeral li ñuy wax sànq ci ay mabahisu ilmul kalaam daf ne almaalumu min aysu yataallaqu bihi isbaatu alxaqaaidi addiiniya taalluqan xariban aw baa baidan mooy day gëstu ci lépp loo xam ne maalum la te buñ ne albaxsu anil maalum rek kon xelmul mantex day ñëw xelmul mantex day ñëw kon fii am na lum fi bokk ak xelmul mantex boo demee ci asarif aljorjaani ci sarxoom moom bi muy sarxa lii da ko leeral ne wa zalika li anna masaila azal ilmi imma xaqaida diiniya ka isbaati alqidami walwaxda lisaanex wa isbaati alxudus wa siati alixaada lil ajsaam wa amma qadaaya tatawaqafu alayha tilka alaqaid ka tarkibi alajsaami min aljawahiri alfard wa jawaasi alqalaayi wa ka intifaai alxaal wa adami tamaayusi almaclumaat almuxtaaja ilayhima fi ictiqaadi kawni sifaatihi taala mutaaddida wa mawjuda fi zaatihi wa diinu yaqumu ala jumlatin min al ahkaam baxda yataallaqu bil umuuri al itiqaadiya wa baxdu yataallaqu bil umuuri al amaliya min ibadatin wa muamalat e, asarif al jorjaani e, bi muy sarxu taarif bi nga xam ne al iji moom la taarifal wala moom la xamle mawduaat ilmul kalaam yi moom daf ne li tax mu wax ne ilmul kalaam li muy gëstu mooy maanaam al maalumaat mooy du gëstu ci loo xam ne mashhul la li waral loolu mooy masala yi xam-xam bi benn mu aju ci pas-pas pas-pasu diine ni ki saxal jiitu gi sunu borom jiitu ak nekk gim nekk kenn wala saxal sosu gi nga xam ne mbindeef ci sosu nañ ko ak seenug dekki ëllëg wala sax mu doon ay e, xadaaya muy ay problème yoo xam ne day aju ci pas-pas yii nii mooy day aju ci point yi ñu wax nii xam nga léeg-léeg mën naa doon point yoo xam ne mubaasara lay doon ak xayri mubaasara bu dee yi ñu wax nii muy saxal jiitu sunu boroom ak amam ak doonam kenn ak sosug mindeef yeeg ñàkk sosoom ak ya aju lool moom min al xadaaya al mubaasara li ilmi kalaam wala min al xadaaya al asaasiya am na yeneen xadaaya yoo xam ne nag ay far'iya la doon ci ñoom muy doomu aadama ci lan lañ ko bindee maanaam ci ban matière lañ bindee doomu aadama ak maanaam ñàkk a ràññatle ci yi nga xam ne dañoo ñàkk ak meloy sunu boroom yi nga xam ne dafa limu mooy meloom yi nga xam ne maanaam ay melokaan la yu sax ci moom ak jëmmam moom sunu boroom tabaraka wa taala yii ku ne xam ne ne ay ay ay yoo xam ne ci pas-pas yii ci la aju léegi nag buñ ñëwee ci euh, ahamiyaam muy am gi mu am solo moom ilmul kalaam mooy doy na ci rek li ñu wax sànq mooy jëmmi sunu boroom lay xamle euh, te yàlla moo gën képp ku dul moom yaakaar naa bi ñuy jéem a firi bul xuddoos ci wolof doon nañ ko ci jéem a leeral bi njegee ci bayt yooyu nga xam ne moom la sëñ bi di wax ne wa baadu fal ulumu afdalu tilaat wa xayru ma llaahu bihi abdan afaat lakinnama tawhidu xayru suxri li saxsi fi lqabri wa yowmi nasri li annahu an gayrihi yoni wala bidunihi yufidu ilmun musjala nee na xam moo gën lépp nit di donnee ci ay wayjuram ak i maamam waaye xam-xam yépp xam-xamu tawhid moo ci gën te mooy ilmul kalaam bii ndax xam-xam tawhid boo ko amee <clears throat> xañ na mu mën a wóotu yeneen xam-xam yi des yépp waaye beneen xam-xam boo mën a am lu mu foor foor te amoo xam-xamu tawhid amagoo dara te lii li koy firndeel rek mooy ku ne xam ne ne yonent bi at yi nga xam ne def na ko màkka euh, ayat alquraan yi nga xam ne doon na wàcce ci jamono boobu ya ci ëpp ci wàllu aqida la doon wax daanaka jamono boobu ay yu néew ñoo ci daan ñëw di tasrin mooy di yoonal di teg ay loi ak i règlement ak i atte léegi nag ñi nga xam ne gëmoon nañ yonent bi ci jamono boobu doonoon ay jullit boobu lislaam pas-pas rek la woon waaye ñu faatu laata ñuy yegg ci euh, jamono ji nga xam ne ci lañ indee luwaa yi ñooñu ay jullit lañ te seen kër mooy aljana ndax ñooñu amoon nañ xam-xamu fekk jamono boobu déedéet kazalika it xam-xamu tasoof ak ya ca aju daawuñu julli daawuñu woor te teewul seenu njullite wér na ndax lan xam-xamu tawxiid moo nekk ci ñoom léegi nag bu fekkee ne nit dafa dem jàngi feq jàng tasawuf jàng mboolem xam-xam boo xam ne ci lislaam la aju te jàngul tawxiid amul tawxiid gëmul yàlla ndax kooku dinañ wóolu ci moom ak mucc deret duñu wóolu ci moom ak mucc kon loolu mooy li sëriñ bi di wax ne li annahu an xayrihi yoni wala bi doonihi yufiidu ilmun musjala hmm? moo tax ñu noonu xam-xam a gën mbooleem lu waay di donnee bàyyam ak i maamam te muy luñ sonnee waaye xam-xamub tawhiid dëggan ci mbooleem lu nit di xam mooy piir ba yéem naa dooleem ndax boo xamoon lépp te moom xamoo ko xam-xam ba baaxagul doyul soxlaal ko bu dee ne moom rekk nga xam mu doyluloo walis ya des mooy piir ba moom lañ koomtuloo ndax sun boroom a gën leneen lu dul moom kon nit la koy xamle a gën lu dul moom loolu bokk na ci ahamiyaam ndax ci la ñuy xamee sunu boroom li yell ci moom ak li jomb ci moom ak li war ci moom ak li dagan ci moom ci la ñuy xamee yonent yi alayhimu salaatu wasalaam li yell ci ñoom ñu xam ko xam-xam la boo xam ne ci lañuy mën a jaar ba wàccuwaay bi ñu war a jox sunu borom ñu jox ko ko ci sellal ko ci bépp mànkite akuk sikk ak loo xam ne yellul ci jëmmam subhanahu wa taala euh, boo demee ci euh, sufiyanke yi am nañ ci ay taarifaat ñoom ku demee ni seen imaam muy imaamul junaydi nga xam ne mooy seen imaam ñoom sufiyanke yi taarifal na ko nee na atawhid ifraadul xadim min al muhdas boo demee ci arisala al xusayriya da fa fekk mooy nee na maanaam tawhid mooy ngeber sunu boroom seppi ko ba mu set wuutale ko ak mbindeef yi ba tey tim boo demee ci abu ali aruza baari mi nga xam ne ndongo ndongale ci aljunaydi moom mi taarifal na tawhid neena na at tawhid istiqaamatul qalb bi isbaati mufaaraqati taatil wa inkaari tasbix wa tawhidi fi kalimatin waxida kulluma zawarathu l awhaam wal afkaar fallahu wa taala bi xilaafihi li qawlihi taala laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiu al mooy wàccuwaay bi tax mu am solo mooy ne mooy jubal sab ci pas-pas bi nga mën a am ci sunu boroom ba tax doo tax taxtiil mooy yenn melokaan yi nga xam ne sunu boroom da koo melowoo nga dindi ko ci moom euh, loolu bu ñu duggee ci euh, maanaam wuute yi nga xam ne dox ne ci diggante achaira yi ak almuxtaziliya yi dañ ko ciy gis ndax ñun al achaira yi dañoo dañoo dañoo gëm ci sunu boroom li ñu tuddee as-sifaatul maani wa sifaatul maanawiya ndax ñaar fukki melo yi dañ koy xaaj ñeenti xaaj am li ñu tuddee asifatu nafsiya muy alwujood ak lu ñuy wax asifatu salbiya sifatu salbiya mooy alxidam walbaxaa wa muxaalafatu alxawaadis walxiyaamu bi nafs walwaxdaaniya mooy sifatu salbiya li tax ñu tuddee ko sifatu salbiya nag as salbu mooy firi ak rikki dañ ne juróom yooyu ay melo lañ yoo xam ne ñoom ñooy rikki lépp lu yellul ci sunu boroom tabaraka wa ba soril ko ko ndax buñ ne euh, alxidam mooy ak jiitu ñu ne waaw yàlla mi nga xam ne mooy yàlla moom lépp bind lépp ndax xel nangu na wala ndax yell na ci moom ñu naan kii moo ko fi njëkk bu boobaa lan la ñuy wax déedéet yellul ci moom kon lan mooy ñëw dàq lool rikki ko ci moom ba mu mooy alxidam buñ ne sunu borom day dee walla day jeex loolu xel am nangu ko te it yellul ci yàlla mu amal lépp bind dund bind dee ba noppi di sàggan dee di ko not wala muy dee di fi bàyyi jaamam yi loolu xel nangu ko te yellul ci yàlla waaye lan mooy ñëw soril ko lool mooy albaxa noonu lañ koy toppee ba juróom yooy jeex loolu tax ñu tuddee leen asifaat asalbiya nga ñëw ci beneen pàcc bi muy ñetteel bi muy asifaatul maani wala sifaatul maani mooy juróom-ñaar yooyu di kàttan coobare xam-xam dund dégg gis wax juróom-ñaar yooyu nga xam ne ñun asaayira yi dañ koo saxal ci sunu boroom waaye bu dee moxtasile dañ koo dàq firaaran li taaddud ñoom dañ koo dàq ndax lan ndax nee dañuy bañ ak li mu am ci alxudama firaaran li taaddudil xudama ndax buñ ne sunu borom xaddim la dafa jiitu ba noppi ñu ne euh, alxidam wala ñu ne alqudra lu sax ci sunu borom te ñu ne sunu borom dafa jiitu te bu dee sunu borom daa jiitu faaw ay melokaanam dañuy jiitu moo tax ñoom dañ ne léegi buñ wax ne alqudra lu am la ci sunu borom waaye nañ wax ne yàlla daal xaddir la rek waaw ah, nañ wax ne yàlla xadir la lool na boo demee ci ihya ulumuddin imaamul xazali mi ngi leen di tontu na leen loolu xel nanguwu ko ndax moo ngi fekk moo ngi mel ni nga fekk nit ñu rey ko kii taxaw yor paaka ne man maa ko rey mu leer la ne ne kii moo rey kii kii mooy ki ñu rey kii mooy ki ko rey waaye nga ne kii ñu rey nii dañ koo rey kii ko rey moo ko rey waaye ak yi amul maanaam ak yi amul loolu xel nangu ko mooy ne sunu borom ku am kàttan la waaye jëmmi kàttan amul ci sunu borom jëmmi kàttan amul ci sunu borom sunu borom kuy dégg la waaye jëmmi dégg amul ci sunu borom kon lii ñun dañ cee am wuute ak ñoom moo tax mu ne maanaam bokk na ci amuk soloom dañ ciy mën a jaar ba duñu mën a taatiil taatiil mooy loo xam ne sunu borom doo ko war a melowoo ñu rikki ko ci moom walla it loo xam ne tasbiix la dañ ciy mën a jaar it ba mën a wattandiku tasbiix mooy di jël sunu borom di ko ñu róole ak mbindeef yi kem ñi nga xam ne alxulaat na salafi asalafiya almuasara noonu lañ ko defee ndax ñoom seenu pas-pas yu ci bëree bëri tajzim la jël jëmmi sunu boroom di ko ñu róole ak jëmmi yàlla wala jëmmi mbindeef yi buñ ne sunu boroom nee na istawa ala al ñu ne sunu borom istawa ala alxars kastiwa ina nahnu ala maqaidina aw ala e, manadidina aw ala shay'in xar mooy buñ ne sunu borom nee na dafa toog ci kaw aras ñoom ñu ne sunu borom nam toogee ci aras mooy kem man nii ma toogee nii ci kaw moket yi xam nga loolu ñuróole sunu borom la ak mbindeef yi loolu ñun li sunu gëm-gëm mooy yàlla istawa kama axbara waaye laa kama yaxturu lil bashar mooy sunu borom daal kem nam ko waxee rek noonu la ko noonu la ko defee waaye du kem ñun nuñ koy imaginer moo tax sëriñ bi ne fa kullu ma yaxturu fil baali abad fa bi xilaafi zaaka rabbuna al ahad lépp loo xam ne day toq cim xel rek sunu borom wuutee na ak lool lépp loo xam ne doomu aadama mun na koo xelaat sunu borom wuutee na ak lool ndax yàlla moo bind nit bind xel def ko ci moom xel moom nag lu mu màcc màcc sunu borom da ko defal limite dafa am fu mën a yem am na foo xam ne mënu koo jéggi moo tax yonent bi noonu nañuy xalaat ci kéemtaanu sunu borom yi waaye buñ di xalaat ci jëmmam ndax xalaat ci jëmmam fi mu ñuy yóbbu mooy maanaam yàlla dinañu gëm la loo xam ne bu ñuy xalaat ci moom sunu xel du ko nangu ndax moom mi bind xel moo ko limité foofu mënu koo mënu koo romb te doomaadama dafa sob ñaareel lu xelam nangul rek maanaam da koy jéeme weddi liñ naan al insaan aduwun lima jahil maanaam doomu aadama ñaareel lu mu réeree rek da koy noonu loolu tax yonent bi euh, tere woon ñu maanaam ñuy xalaat ci jëmmi sunu borom boo xoolee mbindum sëriñ bi yu ci bëree bëree bari mu ngi leeral wàccuwaay bi nga xam ne xam-xam bi am na ko ci yu bëree bari boo demee ci masalikul jinaan rek euh, mu ngi koy leeral wa afdalul ulumi bil illaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi waaw rabbina ala ittifaaqi xam-xam yi ba ca gën mooy xam-xamu tawxid feneen nit wa qaddimu alxaqaida sunniya mujaradatin an firan wa mirya ca tasawudu subbaan mooy ginnaaw bi mu ñu digalee ñu jàng daf ñu digal ci xam-xam bi ñu war a njëkkee xam-xamu tawhid waaye nag foofu teg na ci lu am solo muy xan xanfiran wa mirya mooy xam-xam boo xam ne day dëppook alquran ak sunna nii ñu ko jàngalee ay duur du ca am kem ni mu ci yeneen firax yi maanaam mirya it mooy maanaam euh, ay werante ak i duur daal du ca am maanaam duur mooy saxalal sunu boroom lu nekkul ci moom comme ni ñu ko waxee sànq ci masalatul istiwa euh, al istiwa iya ala al arsh am na ñoo xam ne dañ caa xaabaabal ndax loolu wax dëgg yàlla yellul ci sunu borom ndax sunu borom euh, dafa dàq ci moom lépp luy ñuroog doomu aadama lépp luy ñuroog mbindéef te boo nee yàlla toog na ci kaw aras te ñun ñëpp ñu nangu ne sunu borom doon la koo xam ne maanaam li ñuy wax alfaraax tënku ko mooy comme ni ma toogee sama jëmm yor distance bii nii yàlla amul loolu makkaa nit tënku ko naan mu ngi ci bërëb sàngam yàlla mu ngi Tuuba wala mu ngi Ndakaaru wala moo ngi euh, Makkatal karama wala Madina sunu borom amul loolu wala ñu ne mu ngi ci asamaan wala mu ngi ci suuf sunu borom amul loolu loolu d'accord nañ ci d'accord nañ ne yàlla jamono tënku ko ñu naan kon ñun jamono ji ñu nekkee tey di samedi 23 euh, mars 2024 sunu borom amul lool sunu borom lépp maase yem ci moom lépp a teewandoo fa moom léegi nag d'accord nañ lool d'accord nañ ne yàlla moo bind lépp moo bind aras bind kursiyu bindu asamaan ak suuf léegi buñ ne sunu borom bi mu bindee aras dafa toog ci kawam loolu mooy sàkkal nañ ko jëmm sàkkal nañ jëmmam it mooy am na fu mën a yem waaye nee na ñit sunu borom dañu koy taawu sunu borom dañu koy taawu te loolu yaakaar naa sëñ bi mu ngi ko doon dàq ci mooy bu xuddoos hmm? walaysa fii sayin walaysa min sayin wala fihi wala fi taxtihi wala alayhi musjala mooy sunu borom nekkul ci kaw dara ndax bu nekkee ci kaw dara rek dañu ko taawu te kon buñ ne sunu borom moo ngi toog ci kaw aras li ñuy wax mooy arasu ko taawu newul ci ron dara itim ndax bu fekkee ne dara tiim na ko rek dañu koo not ndax lu la tiim not la waaye jugewul ci dara maanaam newul ci ci ci ci ci ci ci kaw dara yit ci gàttal mooy walay sa maxuuran wala suraa dara gawu ko mooy newul ci biir dara kon loolu mooy leeral yi nga xam ne euh, moom lañ ci doon indi waaye it foofu liñ ci fàtte wax rek mooy bokk na ci ruddoot yi nga xam ne olamaawul achaira yi ñu ngi leen ciy tontu mooy ne bu fekkee ne d'accord nañ ne sunu borom moo bind aras te ñu ne sunu borom ko du koo xam ne day tuxalu min makaanin ila axar léegi laata muy bind aras fan la nekkoon ndax buñ ne mu ngi toog ci kaw aras léegi laata muy bind aras di bind asamaan ak suuf fan la nekkoon loolu it ñoom am nañ problème ci tontu ko kon euh, yi bokk na ci maanaam xam-xam bi am gi mu am solo mooy dalay xamal yii nii nga bañ a euh, askanal ci sunu borom lu yellul ci moom waaye it nga bañ koo euh, dàqal loo xam ne dafa sax ci moom léegi nag bu ñëwee ci manhaj bi muy manhaj bi nga xam ne moom lay jaar ngir tereta ay mawdu am ndax wax nañ sànq ne xam-xam bu nekk dafa am méthode boppam boo xam ne ca lay jàllale maanaam ay njàngaleem moom nag ni ñu ko waxee ci taarif bi rek xam-xam la boo xam ne méthode bii muy jaar ngir dëgëral sa pas-pas wala ngir dàq lënt yi nga xam ne noon yi ñoo ngi ko bëgg a dugal ci suñuy pas-pas mooy ci sam xel lay jaar ci sam xel lay jaar ngir dëgëralee ko li test yi wax waaye foofu buñ ne cim xel rek lay jaar day mel ni xaw naa ñuroo ak yeneen xam-xam yi lu demee ni fël falsafa ak ilmul mantiq ndax yooyu xam-xam la yoo xam ne ay addilaatam ci maanaam ci xel la koy jaarale waaye lii seen wuutee rek mooy moom mii di ilmul kalaam da koy def ngir défendre diine ngir liggéeyalee ko diine ñee nag bi ñu koy def moom dañu ko def rek ndax ñoom dañ dañ ne maanaam ngir nit mën a doon philosophie mën a doon maanaam ab philosophe wala mu mën a doon am am mantiqi faaw moom xelam dañu koy libérer totalement dara du ko tënk dara du ko tënk te loolu nag boo ñëw ci almul kalaam moom dëgg la ci xel lay jaar waaye dafa am limite mooy saa bu taarut amee surtout sax ñun asaanira yi rey walla luy ñuru ak juyo bu amee ci maanaam diggante xel ak li nusoos yi wax ñun dañuy jéng jëm ci nusoos yi bal sax dañuy jéem a at tawfiq baynahuma mooy dañuy jéem a xool nan lañ nan la ñuy fexe ba ñu dëppoo ñoom ñaar buñ jéemee jéem nag mënuñu ñu ne léegi dañ fiy bàyyi sunum xel te jël li ñuy wax atafwit ndax bu njëkk euh, loolu moo amoon boroom xam-xam njëkk yi benn dañ leen daan wax ñu gëm niñ leen ko waxee wéer la ca des ci sunu borom loolu la ñuy tuddee atafwit léegi nag ñun bu ñu ci marxala boo xam ne nii dañuy gis ne am nañ problème ci dëppale diggante alxaql wa la dañuy xool li nas yi wax ñu lëngal lool ci kaw li sunu xel wax ndax ñun dañoo gëm ne xel am na capacité gaa waaye am na foo xam ne nii mënu faa weesu am na foo xam ne yeggu fa moo tax it addudu diini al ji bi muy leeral addalail addalail al aqliya yi euh, da ko def ci ñetti xaaj bu njëkk bi muy dalilun aqliyun mahd laa yatawaqafu ala samxi wa muqaddamatihi xaqliyatan mahdan kal qawli alaalimu mutaxayirun wa kullu mutaxayirin xaadis mooy firnde boo xam ne cim xel kese kese kese kese la tegu nga xam ne mën naa demal boppam walis muy sukkandiku ci diine loolu am na nga xam ne du doon firnde boo xam ne ngir nga mën koo jàpp danga naan yàlla nee na wala yonent bi nee na loolu mooy misaal lu mel ni monde bi day changé day soppeeku te lépp luy soppeeku rek dafa soso ku ne xam na ne xel nangu ko monde bi dafa day changé loolu xam nañ ko léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng léeg jamono métti léeg-léeg mu neex ak ya ci aju lépp luy soppeeku rek daa sosu ndax doomu aadama léeg-léeg mu xiif léegi léeg mu mar léegi man bu ma xiifee tey ndogu jot ma daldi di ndogu ku ne xam na ne regg naa waaye léegi subaa ci heure bi ma xiifaat ndax sama xiifuk tey laa xiif wala geneen xiif gu sosu la waaw boobaa geneen geneen xiif lay doon kon ak changement am na mooy xiif gi jóge na ci ñàkk ñëw ci am mooy boo xiifee am na boo reggee xiif ga ñàkk na léegi boo reggee ba xiifaan nag beneen xiif moo sosu gu bokkul ak gu démb ga looloo tax ñu ne aalam bi dafa sosu maanaam aalam bi day soppeeku te lépp luy soppeeku rek daa sosu loolu xel bi muy bi muy jàngat lii di indi natiija bi sukkandikuwul ci alquran nee na wala yonent bi nee na kon bii mën naa dem ak boppam ñaareel bi mooy dalilu naqliyun mahd mooy beneen dalil boo xam ne xel amu ca wàll moom naqli rek moom moom alquran rek kay wax wala yonent bi wala ñu tuxalee ko ci ñoom ñu jàppee ko noonu te mooy lu lu demee ni euh, sunu borom yebal ay yonent sa yooyu nga xam ne mu ngi leen di boole ak ñoom ak maanaam euh, yi nga xam ne ay xëy bi yaat la muy ëllëg yowmal xiyaam lay xew bis xam nga yooyu yëpp war nañu gëm ko waaye ndax dañu koy teg cim xel déedéet ndax ñaareel xel li ëpp muntu imaginer loo xam ne maanaam gëtam musu cee tegu walla lu bëree bari lu ñu ko wax rek da koy xiyaas moom ci lim gis maanaam lu bari xel li muy li muy loo xam ne gisagu ko bu ñu ko ko waxee da koy xiyaas ci lim xam te ku ne xam ne ne aalam bii ñu ne wuute na ak aalam boobu kon moom muntu soba soba sob ba mën a xam ëllëg lay xew yowmal xiyaam lu dul ne sunu boroom moo ko wax ak alquran kon fii moom amul ca majaal wala majaal bi ma amul ca amu ca wàll beneen bi mooy dalilun murakkabun min xuma mooy beneen dalil boo xam ne maanaam ñoom ñaar ñëpp mën nañ caa mën nañ caa mën nañ caa jaar mooy ñoom ñaar ñëpp am nañ ca wàll muy maanaam dalil boo xam ne yenn yi dañ koy jëlee ci naql yeneen yi ñu jëlee ko ci xel Euh, te boo demee ci alquran it wàccuwaay bu am am solo la jox am xel waaw ah, xam naa ne daa mel ni waxtu yi mu ngi ñuy mu ngi ñuy tënk waaye ñu ñëw rek euh, ci ak soso moom ilmul kalaam lan moo tax mu sosu lan moo doon jubluwaay bi ak ci étape yi mu jaar euh, ilmul kalaam xam-xam la ci xam-xamul islaam yi ni yeneen xam-xam yi sosoo ni la sosoo ni feq sosoo usulul feq ilmul hadis euh, at tasawuf ulumul quran ak yeneen ya ci aju ni la sosoo ndax bu njëkk euh, jamono yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam saaba yi xamuñu woon maanaam taarifaat yu bari yii wala mustalahaat yi ñuy jëfandikoo jamono ji ñoom xamuñu ko woon mbooleem xam-xam boo xam ne aju na ci diine rek ñoom alfiqu lañ ko daan tuddee moo xam muy tawhid wala muy yeneen ak yeneen ak yeneen ku ne xam ne ne saaba yi bu leen yonent bi a wax wala alquran wax leen daaw ñu sikki sàkk daawuñ ca teg baat dañ ko daan gëm ni leen ko alquran ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee kon ñoom seenu pas-pas ci seen wàlluk diine niñ war a gëmee yàlla ba mu wér ñoom dañ ko daan gëm rek niñ leen ko waxee waaye jamono di dox bañ jugee fi ñoom euh, euh, ataabiona yi dal di ñëw biñ ñëwee it xazawaat yi daldi bari bëri yi dal di bëri ñu bëree bari dugg ci lislaam gox yu bari yoo xam ne lislaam yeggu fa woon it léegi tàmbali na faa yegg ñun nga xam ne nag ñu yees lañ ci lislaam yàlla dogal ñu amoon yeneen i gëm-gëm ak yeneen i xam-xam lu demee ni ilmul falsafa wa ilmul mantiq ñooñu bi ñuy dugg ci lislaam seen afkaar yooyu ak seen tabi'a boobu aada boobu ñu amoon ci balaa ñoo gëm dara faw ñu teg ko ci seen xel ak man débat góog ñi mënoon a débat loolu dañu ko indiwaale ci lislaam loolu nag jur na problème ndax tax na biñ ci duggee buñ leen bëgg a gëmloo yi nga xam ne wax nañ sànq ne am na ci dalil yoo xam ne xel amu ca wàll ñoom du ñu nangu lool faaw danañ fa ne di poser ay question waaw nangam ndax xel nangu na ko nangam ak nangam nan la mën a nekkee masalan rek euh, ñu ne sunu borom kenn la ñu ne loolu nan la mën a nekkee yàlla nan la mën a doonee kenn wala yàlla nan la fi nan la fi nan la nan la mën a doonee koo xam ne tàmbalewul fenn ndax lu amul fu mu tàmbalee xel nangu na ko léegi yooyu doon ay tasaawulaat yoo xam ne jur na problème bi loolu amee nag euh, ulama u sunna dañoo def ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi dañ ne ñoom ñii bu bu bu ñu leen déglu ndax yii ñuy wax ni ay afkaar la yu daase yoo xam ne ni mattu bàyyi xel ay subuhaat ak i lënt la yuñ bëgg dugal ci diine ji ne ñun nañ koo centré wu rek ci pas-pas bi wér bi nga xam ne jëlee nañ ko ci saaba yi am na kuréel boo xam ne ñoom maanaam yoon woowu lañ jaar ca la ñu muamala ak afkaar yi di sosu bees am beneen kuréel nag am beneen kuréel bu jóg nag ne déedéet lii bu ñu ko defee musiba day am ndax bu ñu leen seetaanee mën nañoo dem ba tasaare seeni afkaar yi ci biir jullit ñi te boobaa pas bu wér mën naa réer léegi ni ñuy def mooy dañuy fexe yoon wii ñuy jaar mooy ñoom ci seeni xel la ñuy jaar ba mën a dajji pas-pas yi ñu nit ñu dem jàng xam-xam yooyu ñu jàng muy falsafa ak mantex ba mën a jaar ci xel kem niñ ciy jaaree ba mën a wéral suñuy pas-pas man koo défendre ci loolu ci la euh, ilmul kalaam soso kuréel yi ci njëkk kii nag muy al muhtazila ñoom bokk na ci kuréel yi jiitu ci maanaam firax kalaamiye yi ñoom waral na ulama sunna yu bëree bëree bari doon ŋàññi ilmul kalaam ndax ñoom nañ ca daan taamulee ci ginnaaw wax nañ ne ñoom seeni xel lañuy ñuy notal ci ay test maanaam saa yu nas ñëwee wax loo xam ne wuute na ak seen xel ñoom seen xel la ñuy lëngal te loolu ku ne xam ne ne bu koy doomu aadama di def léeg-léeg mu toll ci mawxif boo xam ne nii faaw mu am problème loolu nag tax na boroom xam-xam yu bëree bëri daan dal ci kaw ilmul kalaam daan ko ŋàññi daan wax ne xam-xam la boo xam ne xam-xam bu bon la ak ya ci aju mattu jàng ndax lan ndax ñi nga xam ne mooy mu'tazile yi niñ leen gaan niñ leen gisee ñu ko daan jëfandikoo loolu moo waral loolu léegi nag bi demee ba ci ginnaaw bi yeneeni kuréel dal di juddu euh, bokk na ci al maturidiya te abul mansour al maturidi sos ko ak al ashaira wala al ashariya te abu musa wala abu hasan al ashari sos nga xam ne ñun ci lañ ci lañ tënku ne ko borom euh, kii waxe ibnu asir euh, nan la ko waxee ti waaw hmm? ah, waaw fi aqdi lashari wa fiqil maliki wa fi tariqatil junaydi saliki waaw ah, wa fi tariqatil junaydi salik nga xam ne bu ci wàllu pas-pas pas-pasu maanaam euh, imaam abi hasan al ashari moom lañ ca moom lañ ca topp moom nag njëlbeenam am mu'tazilien la woon ci kuréel googu ñu doon ñi moom ca la bokkoon am na ci ñeent fukki at yàlla dogalin mu ci doon kàngam lool demoon ba ba ba ba maîtriser seeni lay ak mboolem pexe yi ñu daan def di ko débat ulama usunna yi di leen man di daaneel ndax wax dëgg yàlla yoon woo xam ne am nga ci ñeent fukki at doon cëb sëriñ di ca jàngale yaakaar naa euh, danga ca danga ca am xam-xam ba bu yàlla gindee nga koy contour da nga mën a am da mën a xam fi ngay jaar moom nag ci la sax am na fa ñeent fukki at euh, ak taxawulam nag minal euh, i'tizaal ila aqidati ahli sunna wal jamaa boroom xam-xam yi am nañ ci ay wax mooy génn gim génn ci pas-pas yooyu mu nekk maanaam ñëw ci ahlu sunna wal am na ñu ne lay sabab bi mooy bis daf doon munazara ak sëriñam bu ñu wax aljabaa yi da doon munazara ci ak moom dal koy posé question ne ko euh, ñetti nit ñoo xam ne ñoo bokk lépp di ay mag ak rakk kenn ki dafa juddu rekk faatu kenn ki yàlla tawféexal na ko mu gudd fan lool waaye jëfam mu teg ko ci lu baax faatu dugg aljana keneen ki yàlla dogal na ko mu dund waaye cib safaan la ko sunu borom xiir mu faatu mu dugal ko safara bim ko laajee nag ñetti ñii lan mooy seen wàccuwaay ëllëg mu ne ko bu dee ku njëkk ki maanaam euh, mooy ki nga xam ne dafa juddu rek faatu kook moom sunu borom mën na koo mën na koo mën na koo dugal aljana waaye nag du ne ci daraja yu kawe ya bu dee keneen ki nga xam ne nag moom ak dundam yëpp jeexal na ko ci lu baax sunu borom da koy yégal ci daraja yu gën a kawe ci aljana bu dee keneen ki ci des muy ki gëmul sunu borom dugal ko safara. Euh, Abu Hassan da ko tontu da ko waaw léegi bu ñu demee ba ëllëg loolu am ñu ne léegi kenn ku ne na dem këram euh, xale bi nga xam ne moom dëgg la sunu borom dugal na ko aljana waaye bëgg naa am daraja jee magam jee am mu ne ko yow yàlla lan moo tax bàyyi woon ma dund ba am at yi sama mag ji am ba mën a jëf lu baax ngir ma mën a am tey daraja jii mu am sëriñ bi ne ko bu boobaa sunu borom da koy tontu ne ko ah yow de damaa xam ne boo dundoon kat ba am at yii moom am nii man ngaa jëf-jëf yoo xam ne maanaam dalay yóbbu ca safaan ba loolu laa la doon bañal ba tax ma teel laa faat Abu ne ko waaw léegi bu ko sunu borom tontee lool beneen mag ji dégg ko ne ko yàlla yow nag maanaam <laughs> da da da ngaa farle daal da ngaa farle ndax xam nga. sama mbir ni nga xamee ay mbiram moom mii nii léegi bi nga xamee ne moom leer na la ne bu dundee def safaan dugg safara nga teel ko fee jëlee nga xamoon ko ci man lan moo tax nga may bàyyi may dund at yii yëpp bi ma waxee loolu sëriñ bi dal di gag bi mu gagee nag amul lu ko tontu moom Abul Hasan nag ci la euh, dal di tàmbali nag di amuk duut ci lii mu nekk nii waaye ci nettali nee nañ ci la dugg xalwa di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu gindi ko sunu borom teg ko ci pas-pas bu wér ak yoon wu jub nee nañ laata xalwa gi jeex ci la gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ko gisee yonent bi ne ko yow abil xasan génnal ci li nga nekk maanaam te ñëw ci pas-pas bi nga xam ne mooy sama sunna man te nga difandaral ma ko bi loolu amee nee nañ ci la taalif téeréem yooyu euh, di al ibaana di al ibaana bi ko taalifee nee nañ ci la génn ñëw ci jumaa ji nga xam ne moom la daan jiite bi mu taxaw ci kaw bar bi dal di jàkkaarloo ak mbooloo mi ne leen bis ni ki tey mbooleem lépp la ma daan wax ci ne alquran maxluux la alquran dañ ko bind wala yépp gëm-gëm boo xam ne amoon naa ko ci kurél gi ma bokkoon di al mu'tazila bis ni ki tey génn naa ci ba seet ci wecc fekk mu ngi soloon am malto mu dal di simmi malto mi ci ginnaaw sànni leen ko dal ne ni ma simmeekoo ci sama mbub mi noonu laa simmeekoo ci pas-pas yooyu bis ni ki tey maa ngi ci pas-pas bu wér te muy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa dal di leen jox téere yooyu nga xam ne moom la taalif looloo tax bu ñuy faral di wax ahlu sunna wal jamaa jamono jii nag coow li bëri na lool waaye ci dëgg-dëgg génnul ñetti kuréel yi muy al ashariya ak al maturidiya ak al asariya buñ ne al ashariya muy abul hasan al ashari mi buñ ne al maturidiya muy maanaam euh, abu mansour al maturidi buñ ne al asariya nag am sax ñu naan ko maanaam al xanafiya euh, muy abu hanifa wala al xanbaliya yaakaar naa euh, waxtu wi daf ñoo xoj waaye benn kii moo ci desoon euh, kii bi ci desoon muy yenn intixaadaat yi nga xam ne maanaam am na ci ilmul kalaam te yooyu yaakaar naa leeral nañ ko ci euh, biir waxtaan wi xañ na li ñu deful rek mooy cité yenn waroom xam-xam ak wax ya ca wax ak gis-gis bi nga xam ne moom la ci ulamaul kalaam yi am xañ na waxtu yi moo ñu moo ñu xoj kon dañuy taxalu foofu di jéggalu mbokk yi bépp njumte boo xam ne am na ci waxtaan wi ñu xam ne néewug aliwala ak ak matadik doomu aadama waaye bu ñu sañoon mu matee kem ni ñu ko sàkkoo ci ñun ndax wax dëgg yàlla fii suñuy sëriñ rek a fi toog ak suñuy kilifa yoo xam ne jàngal nañu lu baree baree bari yàgg nañoo sukk ci seeni roon di tëral ay téere ñooñu nag dina jafe lool nga taxaw seen kanam jàkkaarloo ak ñoom di wax ak ñoom surtout sax ci euh, fànn goo xam ne ñoom ñoo la ci sut waaye nag comme que seeni ndongo lañ ñu jox ñi ndigal li moom munuñ nuñ cee munuñ cee ñàkk nam na bi waaw wa axiru daawaana an ilhamdulillahi rabbil alamin wa maa ubari'u nafsi innani basharun ashubu ahta'u maa lam yaxmini alxadaru walan tara odaran aw labisi min an yaquula muqirran innani basharun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh indi nga ko nu kawe njort noo ngi lay ñaanal njàng meek njàngale mi fi ngeen ci bëgg a yegg rek yal na yàlla yeggale leen fa moom mi nga xam ne dara tawu ko wax dëgg yàlla képp koo xam ne teewlu na ko rek dina xam ne jox nga ko yitte ci gëstu waaye itam joxe nga ko ci anam boo xam ne kii teewlu dana jàppandi ci moom lool mu mën cee jariñu ànd ak nag ne day fànn goo xam ne fànn gu jafee wax la ndax dafa lëkkaloo lool ak mbirum xel waaye teewul wax dëgg yàlla macha allah li nga ci joxe daal mat na sëkk mu jotali ko ci itam tomb yu ama am solo la ca njëkk mooy xëy na ilmul kalaam ci baat bi ñu jëfandikoo mën naa am koo xam ne mën naa yes ci moom waaye ndekete ilmul kalaam bi dafa bokk ci mustalahaat maanaam termu yi nga xam ne dañ ko ko jox ginnaaw bi rek waaye mooy ilmu tawxiit loola leeral la goo xam ne bu am solo la la tax ñu tuddee ko ci leeral yu am solo yooyu ci ñenn ñi dañoo gis ne xam-xam la boo xam ne dafa làmboo ay masala yoo xam ne ci wàllu pas-pas la waaye masala ma ca ëpp luñ ca coow mooy ndax alquran maxluuq lam déet te xam ngeen ne loolu dañuy wax kalaamullah maxluuq am xayru maxluuq kalaam jooju ñu jëfandikoo nag ci ne kalaamullah te moo ëpp luñ ca coow kon moo tax ñu jox ko tur woowu di ilmul kalaam nga xamal ñu itam ne mi ngi bokk ci xam-xam yi nga xam ne mi ngi gën ci xam-xam yi ndax xam-xam bu nekk mi ngi ëppee solo ce la muy wax te xam-xam bii day wax ci jàngale lu jëm ci suñ boroom ya nga xam ne moo war ca moom ak ya jomb ca moom ak ya dagan ca moom kon xamee nañ ci ne xam-xam bii di xam-xamu ilmul kalaam wala ilmul mooy xam bi gën a màgg ci xam yi comme ni nga ko indee ci masalikul jinaan wa afdalul ulumi bi ittifaaq ala wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi naka noonu itam leeral nga ñu ci ne jëmmi xam-xam bi wala fànn gii nga xam ne mooy ilmul ni wàllu fiq amee ay mazahib di wuute ci ay masail xam-xam bi moom tam noonu la amee ay mazhab am wala noonu la amee ay mazahib muy ashariya yi xadariya yi aljabariya ba ci ashariya yi yooyu yëpp ay masahib la yoo xam ne kem ni mu amee ay masahib ci biir fiq xam-xam bi noonu la amee masahib masahib yooyu bokk tamit ci yi nga xam ne moo ca gën a fes di al asha di al ashariya mooy bii nga xam ne moom lañ jàpp di maanaam pas-pasu ashaari yi nga leeral itam lu ama am solo ci euh, tajsim mooy li ñu tuddee tajsim te lu mel ni ashaari yi ñoom dañ koy def di wax ne suñ borom mi ngi toog ci barab sàngam comme ni nga ko leeralee ci istawa alal xars waaye bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñooy ashaari yi ñoom dañ koy ta'wil buñ ne istawa alal xars kat ñoom ñu wax ne kat jubluwuñ ca toog gi doomu aadama di toog bañ yegg sax ci ne istawa alal arsi mën naa yore max naa alqahr alqahr maanaam suñ borom dafa not ci kaw xaras te xam ngeen ne sax bu demee ci xasiid ak sindii di baat boobu la sëñ bi jëfandikoo yaa man ala kulli shay'in xaadirun wa ala arsil asim istawa bil qahri yàlla naka noonu itam leeral nga ne xam-xam bi day ñëw di wax ci teg yi muy nañuy jaam nañuy wéetale suñu borom ci alxuraan ak na waaye nag da cee am métatu boppam te mooy ay lay la koy indile ci misaal bokk na ci méthode yooyu ci misaal bu ñu jëmee ci alxuraan danañ fekk suñu borom wax ne xalaqa samawati wal arda fii sittati ayyaam kon suñ borom teg si alxuraan am na boo xam ne dafa saxal ne suñ borom moo bind asamaan ak suuf ci juróom-benni fan waaye boo dajee ki nga xam ne gëmul alxuraan naka nga koy convaincre ci ne suñ borom moo bind asamaan ak suuf mooy indil mooy bokk na ci lay yooyu ñu ko tegal mooy ne asamaan ak suuf wala adduna bi day soppiku te lépp luy soppiku rek dafa sos te lépp lu loo xam ne daa soso it am na ko ko sos te adduna bi moom kenn ñi mawuta engagé na maa ko sos ku du suñu borom subhanahu wa taala waaye itam bi ci mujj mooy xamal nga ñu abul hasan al ashari bi nga xam ne ci moom lañ sukkandiku ci maanaam mazhabam fan la jaar ba maanaam suñ borom yenkawal ko ci gént goo xam ne jaaree na ko ci gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi leeralal ko ni nga xam ne moom mooy pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pas bu wér kon daal almul kalaam buñ ko waxee du lenn lu may alxuraan ak sunna joo xam ne da nga koy jaaree ci am xel moo xam ne ci nga koy layale ba mu dëgër suñ borom a bind asamaan ak suuf am na koo xam ne gëmut alxuraan gëmut sunna kooku nag naka laay def ba gëmuloo ko ba convaincre ko ci ne suñ borom mu bind asamaan ak suuf loolu ku xamut xam-xam bi maîtrise ko loolu doo ko mën bu ko defee kon ñu ngi lay ñaanal suñ borom dëgëral la kattanal la ba li nga ne ci waar wi yëpp nga def ci lu kawe sa njort boo ko defee kon dañuy jox sëñ daam mu wax ñu programme bi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam. kon boo ko defee ñuy siyaare suñu Ibrahima Tunkar bu baax a baax ci waxtaanu am solo yi nga xam ne indi nañu ko waxtaanu am solo lool xam naa ne temps bi moo gàtt rek waaye képp koo xam ne yaa ngi fi moom yaa ngi doon taataan xam-xam bu am solo sax di siyaare suñu bay saam mii ci def ay temps yu am solo rek boo defee kon. suba ci dimanche yi day mel ni kon waxtaan du am ndax xam naa élection yi mooy tax ci altine gi dañuy ànd ak sëñ xam naa ne kon bu ko defee ci altine gi dañu ànd ak suñu sëriñ sëriñ Mbay Jóob lañu àndal ci altine gi mu ñëw ñun ci tomb atalaax anwaanuhu wa kayfiyatuhu waxuhi mu ci ànd ak sëriñ Mamour Gueye ca talaata ga ñuy ànd ak sëriñ Modou Gueye imam mu ñuy waxtaan ñoom ci li xamante mooy war may Touba mu ci ànd ak mbokk mi sëriñ maam Cerno Kan am na ci war a àndal moom nag day sàkku ñu ñaanal ko suba dafa am waxtaan war a def fee ca Alwafa Daaru Muuti sëriñ maam Cerno Kan boo defee kon ñi ngi sant mboolem bu baax a baax seen teewaay ñi ngi sant bu baax teewaay moom am na ci solo lool képp koo xam ne day waxtaan lii la bëgg képp ñi nga xam ne dañuy toog di ko di ko diglu ñu leen ci baax di jiital suñ magu daar yi xam ne ñu ngi fi suñ suñ mbay sàmm ak sëriñ magu daara fi teew yëpp ñu ngi leen siyaar baax baax bu ko defee kon ñu jox sëriñ Maamun ñaan rek ñu yëkkati ba ba altine ak jàmm yaa xayra tayfin ataa bil misli